yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam neena képp ku xëy aduna nekk sa xitte ji gën a rëy sunu boroom dana la boole ñett njàqare judul dog soxla sudul jeex ñàkk gu amul yamukaay yonente bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi wa sallama neena képp ku bëgg aduna nekk ci ab xolam ay soxlaam du jeex ay mëbetam noonu ak xiram noonu àdduna day sàkku ñu koy sàkku ba tey képp kuy wut ëllëg da koy sàkku ba jox ko la mu war a am ci moom lépp kuy sàkku àdduna ëllëg di ko sàkku ba dee dikk jàpp ci ak doxam yaxya ibnu maaz arraziyu rahimahullahu taala nee na xikkam ci kaw asamaan lay jóge di wàcc ci xol yi waaye du wàcc ci xol bu amu kiñaan walla bëgg ak tedd wala bëgg àdduna wala xittay suba malik ibnu dinaar bu masaana toog moo ñeneen day wax kaay leen nu tuub bàkkaar yi nga xam ni ñu bari jàppewuñu ko bàkkaar te mooy sunu bëgg àdduna ku ñuy wax afdaluddin rahimahullahu nee na njabar li tax mu xaraam mooy teqale gi muy teqale diggante nit ki ak soxnaam àdduna nag day njabar xol yi tàqale leen ak seen boroom su ko defee am na ñeent yoo xam ni ñoo gën a dëgër ci bëgg àdduna ba ci njëkk mooy alal aku ñam aki wax aki nelaw képp ku ci bëgg benn ci lu dul lu wér luy dellu ci yàlla subhanahu wa taala bëgg na àdduna alal day beewloo ak lekk day wowal ab xol ay wax day soxlaal ci tudd yàlla subhanahu wa taala ay nelaw day fàtteloo adduna mësta deñ bu yàgg ba léegi di lu ñu ŋàññi lool ci mbooleem nit ña wéy te am xel amul kenn ku masa taxaw di woote ci wenn xeet lu dul bu moytu loona ay nitam bëgg àdduna ak dajale ko bari na lool ay nettali ak xadis yu jëm ci loolu yoo xam ni kenn mënu leen a takk waaye li gën a leer lépp mooy li suñu boroom wax ni àdduna lépp am pola ak ëpplante ba wax ja jeex am na waykat bu wax ni li des ci sag dund dee ci topp yàlla subhanahu wa taala bu la seytaane nax jublul alaxira te ànd ak ragal yàlla subhanahu wa ndax àdduna lépp ak wore la sayiduna aliyu karamallahu wajhahu mas naa wax xammaarum nu yasaar bul jàq ci àdduna ndax lu fi nekk benn muy lu ñuy lekk wala lu ñuy naan wala lu ñuy sol wala lu ñuy fóon wala lu ñuy war wala lu ñuy denc soxna ñam yi wi ci gën mooy lem te gis nga ni teflitu aw yamb la naan yi ci bi ci gën mooy am ndox te gis nga ni bahima yi ak nit ñi ñoo ci yem yére yi li ci ëpp xayma mooy sooy te moom ci aw sax la jóge yu ñuy fóon li ci ëpp xayma mooy misk te gis nga ni dereti kéwél la yu ñuy war li ci ëpp xayma mooy fas te gis nga ni ñi ñuy ray ci kaw fas yi lañu leen di raye yi ñuy denc soxna li ci ëpp xayma la mooy jigéen te gis nga ni sawukaay ci ab sawukaay la am na boroom xikam bu doon dénk doomam ni ko maa ngi lay dénk yoo xam ni mooy matuk xel bul xëccoog ku la féete kaw ci loo xamul bul yootuloo loo mënta jot bul wax ci saw làmmiñ lu nekkul ci sab xol li ngay wax bu mu wuuteeg li ngay def mbir bu agsee bu ko bàyyi bu jàllee bu ko sàkku bul yàkkamti arab yi moom la ñu tudde nday réccu yonente bi salallahu taala alayhi bialihi wasabi wasalama nee na am na juróom ñaar ñoo xam ni sunu boroom dana leen keral ca bis boobee nga xam ni ker du am ludul ak keram ka ca njëkk moo di imaam bu maanu ak kuy saraxe di ko nëbbu ba nga xam ni loxob càmmooyam du xam li loxob ndeyjooram di joxe ak góor goo xam ni jigéen ju rafet da ko woo ci boppam mu ni ko dama ragal yàlla subhanahu wa ak koo xam ni ab xolam daa takk ci jàkka yi bu génnee ba keroog muy dellu si ak waxambaane wu màgg ci jaamu yàlla subhanahu wa ak kuwéet di tudd yàlla subhanahu wa wala mu di ko fàttaliku bay jooy ak ñaar ñu soppante ci yàlla subhanahu wa taala di ci teqali ko am na ku mas a topp boroom xam-xamu ikam lu ëpp juróom ñaari téeméeri kilomètre ngir mu xamal ko juróom ñaari baat yi lan moo gën a diis asamaan lan moo gën a yaatu suuf lan moo gën a doylu géej lan moo gën a waw aw doj lan moo gën a sawara lan moo gën a sedd galaas kan moo gën a torox ak jirim mu ne ko dóoral ku set moo gën a diis juróom-ñaari asamaan yi ak dëgg moo gën a yaatu suuf xolub ku doylu moo gën a woomal géej xolub yéefar moo gën a wow aw doj xolub ku xir moo gën a tàng sawara xolub ku daarloo yàlla subhanahu moo gën a sedd galaas ab rambaaj bu feeñee moo gën a torox ab jërëm am na boroom xikam bu wax ni juróom-ñaar yii balaa am njariñ ànd ak juróom-ñaan yi ay wax balaa am njariñ ànd ak jëf ak gis balaa am njariñ ànd ak nattu ak moom balaa am njariñ ànd ak tabe ak xaritoo balaa am njariñ ànd ak matal kóllëre ak déggu fiq balaa am njariñ ànd ak monte ab sarax balaa am njariñ ànd ak yéene ak dund balaa am njariñ ànd ak wér ak kóolute am na ko wax ni juróom ñaar yi bokk na ci liy matal jaam bi bañ a gërëm bay dugg ci ay neen bañ a mer bay génn ci ak dëgg te am kàttan du ko taxa laal lu mu moomul tey rafetal ay doxaliinam ci ab dundam te am dégg gu rafet ak jikko ju rafet te doon ko tabe am na ko wax ni noppi am na juróomi junni yiw yoo xam ni dugg na ci juróom ñaari baat yi ak jaamu la ci lu dul coona ak waag la ci lu dul takkaay ak ragal la ci lu dul nekk buur kaaraange la ci lu dul benn làqukaay te day suturaal awla di noppal malaaka yi bind am na ko wax ni ñeent yu bon mi ngi nii yu ñu ŋàññi lool te nit ñi di leen def te bu ëllëgee dees na leen ci fay ba ca jiitu mooy jëw nee nañu jëw ni mu gaawe mi ngi mel ni ku waru fas ñaareel ba mooy xeeb boroom xam-xam yi ndax képp ku xeeb boroom xam-xam daa di doyadi ñetteel ba mooy wedd xéewalug yàlla subhanahu wa taala ñeenteel ba mooy rey nit ci lu yoon nee nañu képp ku rey dees na ko rey lu mu yàgg-yàgg al imaamu xasaali radiallahu taala anhu andi na am nettali ci téeréem bi tudd ak tibrul masbuuk ne seyduna muusa alayhi salaam mas nay deyaaleeg boroomam ci at tuur ba wax ko ni dama bëgg a gis sang maandu sunu boroom subhanahu wa ni ko dangaa ñime mënoo muñ samay mbir mu ni ko mën na maa muñ boo ma taw sunu boroom ko demal ca bëtum ndox bee nga làqu fa tey xool sama kàttan ak sama xam li nëbbu lépp mu gis ko war aw fas dikk wàcc jàpp ca ndox ma naan ca daldi tekki kees gu mu defoon junniy diinaar teg ko ci wetam julli ba noppi fam fàtte fa kees ga am xale bu dikk naan ca ndox ma for ko yóbbu am màggan mu gumba dikk naan ba noppi taxaw di julli koo koy fàtte woon kees ga dellusi fekku ko fa ni ko dama fay fàtte kees gu def junni dinaar léegi te yow képp yaa fi nekk mu ni ko man ak gumbalaa nu may gise sag kees ba koy for mu daldi mer bocc jeesi ray ko daldi xool xool gisul dara ci moom mu bàyyi ko fa sayyiduna Musa alayhi salaam ni ko saa boroom sama muñ jeex na yow danga maanu lool lii nu mu deme sayyiduna Jibril alayhi salaam wàcc ni ko sunu boroom kàttanam màgg na nee moo xam yu nëbb yi moo xam loo xamul gone googu nga gis mu for gi xaqam la jël baayam da daan liggéeyal kooku waroon fas wi mu ameel ko lu toll ni loolu ci biir kees gi gumba googu itam daa rayoon bàyyi kooku war fas wi laata muy gumba moo tax kii ray ko sunu mbaanu sew na lool gis nga ko nii sayiduna muusa alayhi salaam melam di jéggalu yàlla subhanahu wa képp ku setantal nettali bii xam ni yàlla subhanahu wa dara nëbbuwul ci moom te mi ngi fayul képp ku ñu tooñ doonte nu xamunu ko mooy waral bu musiba dikkee du nu xam fan la bàyyi ko sayiduna omar radiallahu taala anu nee na yonente bi salallahu taala alayhi wa alihi wa na aadama bi mu wàccee ci suuf si suñu boroom dani ko ñeenti baaj yi ci la say jëf nekk ak jëfi say sët na baat boo xam ni maa ko moom am na boo xam ni yaa ko moom am na boo xam ni sama digg ak yow la am na boo xam ni sa digg ak nit ñi la dox baat bi ma moom moo di nga may jaamu te doo ma bokkaale baat bi nga moom moo di say jëf lépp loo def danaa la ko fay baat bi bi dox sama digg ak yow moo di nga may ñaan ma di la wuyu baat bi dox sa digg ak nit ñi mooy ngay doxal ak maanu ci ñoom ñépp amna ko wax ni moytul ñent kon da nga muccu ci ñent bul iñane kenn bul iñane kon do jaq bul toga ku bon kon desula yedd bul moy yalla subhanahu wa ta'ala kon da nga muccu ci sawara bul dajale alal kon nit ñi duñ la nonu amna ko wax ni ñett yi day dindi ñakare ci ab xol and ak borom xam xam ak fay bor ak jàkkaarloog ab xarit am na ñaar yu waral njàqare ci ab xol te moo di xemmeem ci alali ku nay ak kafak suufe am na jaamukatob yàlla boo xam ni at mu nekk benn yoon la ciy wax am ku ñëw ci bis bi muy wax ni dénk ma mu ni ko def nga bàkkaar mu ni ko waaw mu ni ko xam nga ni yàlla subhanahu wa bind na ko mu ni ko waaw mu ni ko deel jëf ba xam ni far na ko am na ko ñu laajoon ni ko lan moo gën a yéemu ci yëf yi mu ni xol bu xam yàlla subhanahu wa taala ba noppi mooy ko nee nañu ki gën a màgg daraja mooy koo xam ni du faale àdduna ci loxo ku mu nekk ki gën a tabe moo di ki néew la ba noppi di joxe ki gën a ñaaw ci nit ñi mooy koo xam ni doyloowul kenn ngir ñaaw njot kenn itam doyloowu ko ngir ñaawi jëfam li gën a jafe ci yëf yi mooy mbokk mu dëppoog yow am na boroom xikam bu waxoon ab taalubeem ni ko xarit bi ëpp njariñ ci yow mooy sam xel noon bi la gën a mën a wor mooy sëg réer noon bi la gën a mën a fenal mooy say mébét del fegu ci àdduna tey muñ lépp lu metti tey baax ci nit ñi te di leen sopp soppulu di leen bañ a iñaane sayiduna aliyun karamallahu wajhahu danaan wax ni ab àndandoo day ñàkk aw yoon ab dëkkandoo day ñàkk ak kër luqumaan mas naa wax doomam ñaari yii bu leen tudd mukk li ngay defal nit ñi ci lu baax bu ko nettali ak ñaawal ci kuy ñaawal jëme ko ci yow ñaari yi itam bu leen fàtte tudd yàlla subhaanahu wa taala ak dee yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa nee na na am na ñett yoo xam ni jëw leen du jëw xëy na doo ci am bàkkaarub jëw lu bëgg a wax imaam bu jeng kuy naan sangara kuy fésal lu bon yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa am na ñett ñoo xam ni deesu leen yedd ci ñaaw jikko ku tawat ku woor ku nekk ci ab tukki day xam ne ni la muy def walla mu koy wax ak saalit lay doon wallahu alam am na ko wax ni am na ñett ñoo xam ni ku leen di dëgërloo danga torox bis ab buur boroom xam-xam way jur am na ko wax ni ñett ñi wareesu leen a woyofal ak boroom xam-xam akub xarit kuy woyefal ab buur yàq àddunaam kuy woyefal boroom xam-xam yàq diineem kuy woyefal ab xaritam yàq mbañum rusam nee nañu ñett yii day tegtale daraje seen boroom seen boroom ak ndaw lu ñu yónni ak bind nee nañu am na ñett yoo xam ni kenn waru leen a rus sakko xam-xam yëkkati boroom xam-xam diisoog Nia xel nee nañu ñett tegtale mbañum rus set ay yére ak neexet ak set ab xol nee ñett tegtale ngor matal xàq yi sant xéewali bañ a bëril ak lekk nee ñett day musiba yi wéyug bis yi jigéen ju rafet waxtaan ak mbokk yi nee nañu ñett yi balaa kenn lu teqalikook ñoom jaam buy yàq jigéen ju bon bëñ buy metti nee nañu ñett yi daye doyadil aw yaram suur di booloo regg di dugg ci aw wanag taqoog lekk seel yu wow am na juróom ñetti yëf yoo xam ni day waral ak torox sukk ci ndab lu ñu la woowul bëgg a féete kaw boroom kër ga nga nekk bëgg say noon di rafetal ci yow diglu waxtaanu ñaar te woowuñu la xeeb buur toog ci foo warta toog wax ak ku dul dégg li ngay wax xaritoog ku mëtta xaritool am na juróom ñoo xam ni danañu bég ci juróom waaye danañu rëccu ginnaaw ba ku tayel bu ko mbir yi rawee ku bàyyi ay mbokkam bu amee tartar ku jekku ay noonam sàggan ba ñu raw ko ku am soxna su bon fàttaliku soxna su baax sam wàcc naka noonu nit ku baax bu defee bàkkaar da koy rëcc Seydina Omar radiyallahu anhu nee na ñett yi dana waral sa mbokk sopp la di ko njëkka nuyu di ko yaatal ci jataay yi di ko woo ci turam wi mu gën a bëgg nee nañu ñett yi ci ñett yi lay nekk ak doylu ci bakkan lay nekk ak màgg ci toroxlu lay nekk ak tedd ci ragal yàlla lay nekk nee nañu ñett ñii deesu xam lu dul ci ñetti barab bi yii jàmbaar ca xare ba ku wér boo ko dénkee mbokk bu tartar amee ibnu abbas radiallahu taala anhuma nee na am na ñetti jikko yoo xam ni amoon na ca jaahiya waaye jullit ñi ñoo ci gën a yay fonk gan naka noonu bu ñu yoree jigéen ba mu màggat ñu ko bàyyi ngir ragal muy sonn naka noonu seen dëkkandoo bu amee bor wala tartar dañuy taxaw dimbali ko ca am na ñett yoo xam ni ku leen am sag dund du neex ñaaw ko iñaan mbañeel am na ñett yoo xam ni dana waral ak réccu ëllëg jaam buy dugg àjjana bàyyi ab sangam ku dajale alal du ci génne xàq yàlla subhaanahu wa ba faatu ay doomam di ci topp yàlla subhaanahu wa ba mucc moom mu tàbbi sawara boroom xam boo xam ni nit ñu jënoo jariñu ci ab xam-xamam ba mucc moom mu dem sawara xiif dana waral ñett dana waral xot bu set dana rey bànneex dana waral xam-xam bu nëbbu yaxyaa ibnu maas nee na ñetti jikko yi boo ko àndee julli ñi rafetal nga boo leen jëriñul